ak Fatou ne dem Niaba dañu koy njëkkee ak euh, l'observateur mi xëy lii mu tuddee trajectoire euh, du patron de Wari euh, qui a racheté Tigo à quatre-vingts milliards de francs CFA Kabiru nag xam naa ni na moytu cat ndax dem ba tey moom la àddina di waxtaane ci ni mu jëndaatee Tigo ñu ngi liir ci xëtu yéene kaay bi nii l'improbable histoire de Kabiru Mbodj mi ngi noonu ni nga ko waxee Kabirou Mbodj di kooke nga xamante ni moom moo jënd euh, Tigo euh, l'observateur daal di ci xëy moom Kabirou Mbodj jaar-jaaram nag mi ngi ci euh, l'observateur ci xëtam bu njëkk jaar-jaaram mu doore ko ci benn pièce boo xamante ne benn pièce lumb la mu nekkoon ci ak secrétaire am ak fépp fi nga xamante ne daal jaar na fa ba yegg si fi nga xamante ni moom la yegg si tey. moom Kabirou moom la yéenekaay bii di zoom xëyee tey nataalam moo nekk ci xët bi ñu liir ci français ni wari renational. analyse. mi ngi noonu kon euh, Wari euh, toftal na ci euh, ci lam li nga xamante ni rek moom moo di Tigo ak Kabir Mbodj mi ko jënd yéenekaay bi di Zoom Info daal di ci wax lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards moom la jëndee lii di Tigo. waxtaane ca kanam tuuti moom la yéenekaay bi di quotidien xëyee tey jëm ci appareil ba paanoon ci hôpital ba jëm ci ni ñuy fajee ñi amee euh, la mauvaise thérapie de l'État loolu la ñuy lire ci xëtu quotidien tey mi ngi noonu quotidien loolu la xëyee euh, mauvaise thérapie nag buñ ko déggee maanaam euh, nguurug Sénégal daal na mu waroon taxawee taxawewul noonu ci machine boobee nga xamante ni nii moom moo paan maanaam nguurug Sénégal waroon naa kon jël ay matuwaayam laata ñu yegg si foofu ñu dugg ci ngirug magistrat yi ak ki nga ni mu démissionné yéenekaay yu bëri xëy ak moom muy euh, euh, Ibrahima Dem euh, yéenekaay bi di laas ñoo ngi ci liir ci xëtam tey ni Ibrahima Dem claque la porte du CSM. mi ngi noonu muy nag lettre de démission boo xamante ne ni daal di na koy jébbale mu nekk démission boo xamante ni jàpp nañ ni saf na sàpp moom nag la mu naqarlu daal bari na muy anam bi nga xamante ni noonu la magistrat yi di liggéeyee waaye tamit jàpp na ni magistrature fii ci Sénégal moomul boppam indépendance bañ ci bëgg daal loolee la def ci xëtam ba bind ko ci français ni la euh, bi di euh, populaire la daal di xëy leneen a ngi yéenekaay bi di ñu xamal ni safoon na sàpp ca moom affaire de faux d'usage de faux et de tentative d'escroquerie libération moo ci xëy tey saltan la ñu wax pour Abdoul Mbaye mi ngi noonu ak nataalub Abdoul Mbaye bi ci def mu nekk loo xamante ne nii daal la ñu ko jiiñ bokk na ci usage de faux ak mbiru mbirum daal njuuj euh, njaaj ci escroquerie lépp loo xamante ne daal tegu na ci ndoddam euh, tey ji coow la ca Casamance 24 heures def ci xëy tey bindee euh, ci France ni règlement du conflit Casamance Atika dément l'appel de la paix l'appel à la paix mi ngi noonu kon wooteeg jàmm daal bi nga xamante ñi ngi ko doon woote mi ngi noonu kon weddi ko ba mu set wecc moom moomee di Atika lu aju nag ci wooteeg boobu daal nekkul loo xamante lu am la voilà ñu jàll ci yéenekaay bi di enquête mi xëy ak euh, buuru Maroc ak président bu Sénégal ñu tuddee euh, xët bi le choc des intérêts. mu ngi noonu muy buuru Maroc ñu ko waxee président bu Sénégal waaye tamit réewu Mauritanie ndax jàpp nañ ni daal ñetti réew yi ku ci nekk yaa ngi xëcc ku ci nekk it sa intérêt moo la tax a jóg. ba tey dañuy desandeek euh, Maroc ak Sénégal témoin dañu xamal ni ci français ci xëtam ni les pompiers bientôt évacués par des ambulances marocaines. mi ngi noonu jàpp nañ ni njort nañu ne bu ñu demee ba ci kanam tuuti ñoo ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy euh, pompier boo moyul sax logement duñu ko am guleet fii ci Sénégal disponibilité budget yeeg naka la ñu koy voté direct info def ci xëy tay ba lim euh, koppar gu takku euh, jëm ci budget 2017 nara disponible depuis le 2 janvier loolee yéene kaay bi moo ngi ko tuddee une première au Sénégal mi ngi noonu muy nag budget boo xamante ni bu Sénégal ëpp na ñaari junni milliards yoo xamante ni nee nañ disponible na bu yàgg fii ci Sénégal muy budget koppar yi nga xamante ni kon Euh, moom mooy koppar nguur gi. wax nga ko sànq ci journalu 7 heures bi di nga ko waxaat bu ca kanamee tuuti ci bu wolof bi euh, loolee écho def cee xëy tey jëm ci euh, birakan mi ñu dégg démb waaye yéen a ñu xamal ni ci xëtam ni Bamba Fall sera face au juge aujourd'hui mi ngi noonu tey la ñu koy jébbal daal doyen des juges dana jëndoo ak moom tey muy maire bu Médina Bamba Fall gannaaw tuuma yooyu nga xamante ne rek mi ngi ci ndoddam yéen kaay bi di les moom la xëyee tey. ñu jeexal ak ki ñu tàmbalee ci xëtu yéen kaay yi di Kabirou Mbodj réew mi moom la xëyee tey télécom le PDG de Wari rachète Tigo. mi ngi noonu PDG bu Wari kon jëndaat na Tigo ni ñu ko waxee noonu ak koppar ya xayma nañu ko ci juróom-ñetti fukki milliards. moom nag waalo waalo waalo waalo la te nit ku baax la. ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom Kabirou Mbodj dafa baax lool sax moom Kabirou Mbodj yàlla na jàmmam yàgg c'est pas pour rien euh, que euh, Tigo nekk sponsor officiel bu yeewu leen donc defe naa collaboration bi ak yeewu leen ak Kabirou euh, dañu koy gën a yaatal ci yeneeni mbir